ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na jeudi 29 avril 2021 mbokk yeeg xaritu ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati na mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk di leen wax dal leen ak jàmm ci seen journal de l'arène koy defee nii lay demee lépp loo xam ne jóge na ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko faram-fàccee waxtaanee ko mais rek à fois ma ci ànd ak nga xam ne moo di Babacar Babacar nuyu naa la. maa lay fay soxna Ami. mbaa nga am jàmm. waaw sant a baax nuyu ak téléspectateurs yi. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom di leen wax kani bon maa ngi ñaan yàlla daal weeru koor bi ñu nekk nii mm. liñ siy jaamu lépp yàlla na ko suñu borom bi nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàbbal ko ci àddina bi mu nekk ay xéewal ak ay yërmande ak ay njëgal barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di nuyu képp ku ñu suivre à travers le monde man ah <laughs> man may ba may am xaw ma di ah, est-ce que ba may am huit ans la commencé woon. man dama teel a woon. moo tax nga ñeme ko nag. xale kaw ga laa yow tamit nag. du gis nga jàmbaar man ca mbooyu ma laa yaroo. ca mbooyu ah. voilà ah, mbooyu ma laa yaroo man mi ca mbooyu laa bool bool laa ca kaw ga laa jógee. <laughs> kon baax na voilà ñu dem. tàngar xiif moom du suñ problème ñun. du seen problème non jamais au grand jamais rek gis naa fi ñoo xam ne dañuy nelaw sànni mm, baat. Mm, mu di loolu xalaatu waaye ku nekk na nga xam la nga xam te noppi rek. <laughs> voilà kon ñu dem euh, seetaane li nga xam ne moo di revue bi daal di del si waat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum jeudi 29 avril 2021 dañ ñëw ak ñu ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooree ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtamu njëkk la xëy fësal bokk na ci combat royal bi war a dox ci diggante Modou Lo mel ni ki nag yëglikaay bi ne na soo bëggee dégg-dëgg daal ñoom ñaar la leen boole bari na ñaari at yoo xam ne ñu ngi toog di ko xaar boobu ba tey combat bi ngir war koo bëre moo tax yëglikaay bi jàpp na na ak yeneen ñaar yoo xam ne tamit mu ngi ci biir combat bi muy ay tension yoo xam ne daal soo bëggee dégg-dëgg daal ginnaaw ñaari ate xaar daal ñaar yoo xam ne nii mu nga ca maanaam tension yoo xam ne bu méttee métti la ñaar ñoo xam ne tamit benn fauteuil la ñuy xëccoo muy roi des arènes ba kan moo cay toog wala boog muuru day jóg jox ama wala muuru day continuer ab toogaayam loolu lépp yëglikaay bi xëy na tey samp ko ab laaj wala jàngat moom sunu làmb ba ca des tamit mooy ay supporters yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngay kujje kujje gu méttee méttee métti maanaam daal wàllum rivalité dox na ci seen diggante mel ni kon boobu combat bu nara tara tar lay doon bés bés ko soufflé yëglikaay bi continuer dem ca ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moo di magi ama di Balla gay numéro 2 te bërek Modou Lo ñaari yoon yëg li ba jàpp na ne Balla day soo bëggee dégg dëgg mois de juillet moom weer wu ko jik la ndax daa mel ni boo xoolee quatre combats yëg li bi ñëw na ko ci yoo xam ne Balla def na ko ci am ca ñeenti victoire maanaam quatre victoire sunu làmb ba tey moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ni que noonu am na ñoo xam ne nii moom soo bëggee dëgg làmb ji gëjoon nañ ci bu baax a baax a baax mel ni ki nag gëj ñu ci gëj nag gisaat nañ leen ci biir géew bi wala ñu a wàcc lag gu bëre muy jàppal lagros mu faas Issa Pouye mu Caaroy ka nga xam ne ni mooy Jordan mu Pikine ba ci Pakala ak Zarko mel ni ki juróomi mbër yi moom soo bëggee dégg-dëgg gëjës na leen a gis ñu takk ngemb lewaatoo dal di bëre waaye daa mel ni nag promoteur jox na la avance ñu encaissé nag ba fas ne nag bëre sunu làmb xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne ni moom seen bëre fi mu nekk nii nag leer na date ba muy am jàppal yëg likaay bi ne daal le 15 août daal bu ngeen yeboo jàpp ko de diggante double moteur bu rëbës ba ngeen xam ak Quench bu Lansar te dëkk ca Bargny combat ba nag daal boo bëggee dëgg-dëgg waa Thiam production démb moom maanaam régularisé nañ ko fa nga xam ne moo doon ca CNC ba kon combat boobu léegi nag leer na naññeeg nekk le 15 août lañ ko fas yéenee tëgg leneen loo xam ne ne wala keneen koo xam ne ne mu nga xëy di wax di indi ay leeral maanaam ci fusion bi am ci Fass ak Ndakaaru muy ka nga xam ne mooy manager général ba di ka nga xam ne moo di Xalifa ja Xalifa daal jàpp na ne seen ànd bi nu ànd ñoom ñëpp ku ci ne da nga ciy gis sa bopp ndax daa jàpp ne am na ay champion waaye waaye ga nag daa jàpp ne lam ca teg mooy boo bëggee dégg-dégg mbër yooyu fa nekk di ay champion problème mu entraîneur amoon na fa ndax ku ne xam na ne Tafa Gueye taam bëriwu kon ngir mu mën di assister xale ya ngir ñu entraîner moo tax itam waa naam supporter Fass ak ñëpp jàpp ne daal kon war nañoo mën a jaxasoo écurie Ndakaaru nekk benn écurie maanaam Kati Diop di leen tàggat ndax itam jàpp na ne Kati xam-xamam expérience am ak la mu xam ci làmb doy na ngir mu tàggat la nga xam ne nii moom moo di mbër yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dina wax. lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne ba tey mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb muy ña nga xam ne moom moo di jeune amateur yi ak itam samedi jii nu jëm daal maanaam fa nga xam ne moo di ca Pikine daal ndogu lañ fa woote ngir nag fas yéene nag ànd ak nit ña ndogu jox ña nga xam ne tamit yeyoon nañ ko ndogu ñu lekk ba seen biir fees lool ka nga xam ne moom moo di góorandooy lañ ca xëy gis tey ci sunu làmb mel ni ki nag mbir mooma ñuy def wéetuñu ca ndax ka nga xam ne nii moom moo di soo technique moom jël na lu toll ci aw nag may leen ko maanaam daal fas leen koy ne jàppale ca ndogu la nga xam ne dañ koy organise fa nga xam ne moo di ca Pikine keneen koo xam ne ni moom ab sargalam moom la yëglikaay bi xëy tey ñëw dina ko wax muy baabu ngoom ngom yëglikaay bi ne daal le 16 mai daal boo bëggee dégg dëgg daal un million la ñu teg lañ ca jublu nag maanaam sargal ka nga xam ne nii moom moo di baabu ngoom laay Pythagore moom xëy na di wax ci sunu lam retouram daal la fas yéenee def moo tax daal fi mu nekk nii jàpp na ne moom comme combat dëgg-dëgg la bëgg ngir bëre ba tey bu nu continuer ci fa nga xam ne nii moom moo di ca Equivox lañ fay fekk wala kañ fay fekk moo di layti layti nag moom mooy agent wu rëg-rëg ku ne xam na ne biig ci guddi mu ngi doon jongande la nga xam ne nii moom moo di combat MMA combat ba koo mujj a ñàkk bi yoon waaye na mu ko ñàkkee nag moo neexul ña may àndal rawatina agent ba nga xam ne nii moom moo di layti seen tax na nag jàpp na ne ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne jokkoo na ak ñoom ba nga xam ne nii la ñu fas yéenee def nag mooy dugal recours ngir nag ndam loola ñu annulé ko ndax dañoo jàpp ne ne rëg-rëg kam doon jonganteel ba mu koy dóor daa fekk arbitre bi soufflé ba pare mu door ko yoxosu dóor ko ci loos moo tax layti ne lool moom duñ ko nangu tey suba waxi noppi fañ ko war a jooyee nag danañ ko fa jooyee voilà mu nekkoon li nga xam ne nag moo di revue de euh, des titres fi mu nekk nii nag ñu daal di ko dooree rek suñu làmb comme d'habitude tey ci xëtam bu njëkk Babacar ki ñu fa gis rek moo di ñaari champion yi muy Ama Baldé ak euh, Modou Lo Modou Lo deux ans d'attente deux de tension. Euh, benn champion ñaari champion pour benn fa tey dina dina metti de. daa dina xat dina xat trop. ku mënta buuxante. doo gaaw a jot faw nga am toogukaay ah, pour mën a buuxante pour mën a toog ci fauteuil bi. Mm. buuxante bi nag xam naa ne fi mu nekk nii mooy dul mooy doon lu jafe. 200 mm-hmm. date 200 d'attente yi nag maanaam ñaareel ñu toog di ko xaar. Mm-hmm. ba mu nekk ñaareelu rotation. Mm-hmm. li ko indi lenn la rek. comme promoteur bi li mu bëggoon moom mi joxe ay xaalisam daf naa bëggoon na combat bi heure bi ñu bëree ko ba passé ko. Uh-huh. mais bon nit ki di nga bëgg dara sunu borom bi ñëw dogal ay dogalam su keroogee tam bu fekkente ne jàmbu nangu dogal nga da ngay ànd ci sunu borom ba lam daf sante ko ko. Uh-huh. maanaam Luc Nicolas bi mu taxawalee combat bi ku ne xam na ne ba Ama Baldé jotee avance am ndax teeloon na juboo ak Modou Lo digganteem ak Ama moo desoon ba ñu waxee ba yàlla dogal ñu nag. Uh-huh. moom nga joxee avance. ay quelque jours lañ ca teg yàlla dogal ndox ci kawam maanaam yoon arrêté waat ko. Mhm. yaa ngi dégg ñu nekkoon ci loolu te olof ne na buri mënta ànd ak maccum lem. am na yoo xam ne mënta ne. Mhm. après par la suite nag ci la ñu nekk ci loolu ba yàlla dogal mu génn ci kaso bi. Mhm. ah bi mu génnee tamit ku ne gis na ne jubluwaat na ci kombaam. kon li ñu ñaan yàlla mooy deux ans yooyu ñu toog di ko xaar. yàlla na yàlla dogal ñu bëree combat bi ren ci saison bi. ñaari mbëri ku nekk dem. tension bi tamit li ñu ciy wax mooy tension bi moom na nekk tension sport rek mhm. bañ a nekk ak tension boo xam ne bu bañante la mhm. ak ay xiiroo ki ngaayo mhm. parce que muy Pikine muy Parcelles benn gox bi la benn réew mi la Sénégal lañ ne drapeau vert son rouge moo ñu boole am mm. étoile bu vert ba ci digg ba yaakaar naa. ndam li génnul Sénégal yaa ngi dégg. Mm. kon loolu nañ ci veillé bu baax a baax mu ñuy ànd ak muudu ak ñuy ànd ak ama xam ne lii sport la te lii fii du yaakaaruma ne Modou Lo fi lay yemale carrière am mm-hmm. yaakaaruma ne Ama fi lay mm-hmm. ku si ne am na looy xaaraat ci kanam mm-hmm. yaa ngi dégg ku ci nekk na terewul nag say supporter nañ la supporter mais léegi ñu teg ko ci cadre fair play ak sportivité pour affaire yi mën a am ci jàmm jeex si jàmm ku gañe si fauteuil bi dëgg la euh, bu ñu jógee foofu ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 4 combats 4 victoires en juillet peut ci euh, weeru juillet lay faral di am li nga xam ne moo di euh, victoire yooyu mu ñu ñu dàkkantelee ko daal maréchal impérial maanaam benn empire la koo xam ne daal gën dootu lam-laamee <laughs> mëninam ci làmb ci mois de juillet waaw mm-hmm. loolu la loo ci mën a dégg moo lay wan ne moom li mu bëri mois de juillet daa bëri parce que mois de juillet la prépare soo xoolee mm-hmm. yi ci mm-hmm. que moo xam le 31 juillet rawatina le 31 juillet ci lay jeex boo xoolee événement bu mag lañ ci daan teg moom nag bokk na ci mbër yoo xam ne bëri nañ ci bëri di ci yaa ngi dégg ba pare tamit mu nekk mbër mu mag defe naa ne kon weer woowu na xam naa daal yaakaar naa ne boog weeram la parce que benn weer boobu di mois de juillet bu fekkente ne bëri nga ci quatre combats am ci quatre victoires ci ay mois de juillet yaakaar ça veut dire que moo lay wan ne kon moom itam bëri na rendez-vous yoo xam ne ñëw na ko ci mois de juillet ci biir carrière am kon loolu ma lan tamit ba rek bala li ñuy wax ci moom rek maanaam ah moom wax dëgg yàlla ci làmb Balla ci boppam làmb la daanaan loolu la yàlla dogal waaw non loolu loolu mooy lam parce que tamit olof ne na ku gis nen nene na ngi mhm. loolu lay bàll rek làmb la la ku gis nen nene na ngi bien sûr la yàlla dogal noonu la demee ki nga xam ne nag moo di Lac Rose Issa Pouye Zarko Jordan ak Pakala ñu nommé leen li nga xam ne ñoo di ay chômeur de luxe ñu gëj leen gis ci làmb ji te nag euh, ku xam ñi xam ne ay ndaanaan lañ vraiment waaw ñooñu cinq personnes yooyu di amul ci ku nekkul ndaanaan ay ndaanaan lañ ndax ku ne xam na ne bi mu déparé mhm. ñëpp dañ ne woon kii muy jël place Tafa Gueye mhm. accident. dëgg la amay blessure amay gàllankoor te lan day defet taxaw bëreetul ba yàlla dogal tey moo gét ñëw jox ko ka nga xam ne ni moom mooy amaneex muy combat ramas. Mhm. Issa Pouye tamit jamono ñoom Balla gay defe naa ne boobu Issa Pouye daan ko. dañ mhm. koy duggal ci tournoi ba mook ñoom euh, Tapha Tine Lac de Guiers ñëpp xalaatoon nañ ne kii kenn du ko jëlee foofu. Mhm. waaye yàlla du ñëw ki dogalam. carrière am ay jafe-jafe que carrière moo demee noonu. muy Zarko tamit nekk na mbër boo xam ne ku nit ñi amoon ci moom yaakaar la par la suite mu am ay quelques jafe-jafe ci feewu carrière am wala boog du moins sax bi muy mujj bëree boog laa mën a wax. Mhm. Jordan noonu. bakala noonu ñoom ñii ñëpp ku ci ne. Mhm. maanaam boo téyoon làmb tey du bett kenn. Mhm, dëgg la yaa ngi dégg. tey nag amaan nañu chance pour bëree ah yee xanaa li leen di wax rek ñu liggéey parce tamit maanaam. toog nañu ay at ñoom ñi ku ci ne bëréewuloo mhm. gisoo avance mhm. tey defe naa ne bu ay promoteur jëlee risque yëkkate avance jox leen ngir fas leen yéen bëreeloo ah kon yaakaar naa ne dinañ seen retour moom xalaat naa danañ ko jéem a marqué mhm, dëgg la waaw am na solo euh, mbëri nag des yi jàppale ma ci bi Quench de Quench ah, double moteur ak Quench dafa mel ni rek ñoom <laughs> officialisé nañ seen combat le 15 août incha allah waaw loolu la Baba Diaw def ak waa Thiam production mu koy nuyu di jaar di nuyu waa Gueule Tapée bi yëpp moom moo kon boobu combat léegi moom officiel na le 15 août lay am. fa nga xam ne moom moo di ci arène nationale démb la ñu officialisé mbir ma fa nga xam ne moom mooy ca CNC ba. muy date boo xam ne kon jàpp nañ ko. le 15 août yàlla nañ ko fekkee tal ko. Euh, ki xam ne nag moo di Khalifa Dia nekk manager général moom ñëw na ci diggante Fass Ndaka Fass ak Ndakaaru. manager général écurie Fass ak Ndakaaru waaw waaw ok waaw Khalifa Dia waaw moom mooy seen manager général maanaam ça veut dire que licencié ak yooyu moom moo ko gérer ak yu mel ni ki noonu mhm. mook Ibrahima Mbaye waaw li mu wax nag yaakaar naa ci biir wax ji li ma dégg mooy mhm. eh, Fass am na ay champion waaye waaye bi nag li ko waral mooy xëy na li leen war a encadré taxaw leen si côté coaching mhm. ba ñu yegg ci niveau bi moom moo xawoon jafe par rapport ak Tafa Gueye boo xam ne am na xam-xam bi mais jotam ak temps ak ni mu mel ci réew mi mayu ko tout le temps muy assister entraînement loolu bokk na ci li tax ñu toog waxtaan mhm. xam ne ñoom war nañu mën a ànd ak Amadou Kati Diop Amadou Kati nee na deux ans ñu ngi waxtaan mhm. Amadou Kati Diop tamit nekk na koo xam ne defe naa ne buñ nee faas nit mënu ko caa dindi surtout rawatina Fassu démb kon tey bu ñu waxtaanee ba déggaat jël écurie Fass ak écurie Ndakaaru fusionné ko def ko benn écurie mhm. kat yi nekk seen entraîneur principal mhm. defe naa loolu te kat itam xam naa ne taa ba tafaagee pour tàggat xale mhm. dina ko am pour tàggat ko te xam-xam boo gis ci tafaagee ba ko naw jàppal ne bu dee 100 la man naam 80 pour cent yow katee ko def ci moom ndax bi muy nekk ci dëgg dëgg dëgg ndëndam Amadou Kati Diop moom moo ko doon entraîné kon defe naa tey mooy li xalifa jëm di ko wax fi di ko dëggal rek dëgg la mm-hmm. euh, ki nga xam ne moo di euh, Gora Ndoye euh, bokk nag ci jeune amateur ah. mu ngi dellu si rek seen activité bi nga xam ne dañ ko war a amal samedi mu mel ni dañoo organiser benn ndogu spécial boole ci don au talibé sensibilisation sur la non violence. waaw loolu ça veut dire que lu am solo la Gora Ndoye ñu koy nuyu di ko ziar moom mooy président des jeunes amateurs du nuyu bureau bi yépp ñoom moo bu Parcelles ñoom Balla Diop ku fa nekk ñoom Mame Diarra. Mm-hmm. waaw soxna yi fa nekk tamit xam nga ñoom Awa Wan. ah ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu jeune amateurs yi. Mm-hmm. Modou Baye Fall Abdou Salam ñoom ñëpp ci kuréel gi la ñu bokk. Mm-hmm. tey defe naa li ñuy def ni tamit am na solo trop. Mm-hmm. parce que tamit defe naa ne woor ba weeru koor jot nga organiser ay ndogu. xam nga yëkkati pour dimbali ci ay dongo daara ak ay nit yoo xam ne soxla nañ ko. defe naa loolu am am am solo non violence boobu tamit defe naa ñu leen ciy remercier parce que tamit defe naa ne non violence moom amul benn njariñ. te du te yokk dara. kon ku koy xeex rek ñun dañ lay wax jërëjëf. muy profité wàll ci loolu tamit ci nuyu ku mel président Massamba ji ndax buñ ne tey non non violence rek mhm. suñu xel day dem ci Massamba ji ak groupe baax mhm. ndax dañ ko yàgg a taxawe si làmb kon defe naa tey bu ñoom góorandooy ñëwee tamit di dox ba yàgg ñu yokk ko ci mhm. a am góor tamit nekk koo xam ne vraiment nit ku baax la ku disponible maa koy nuyuwaat di ko ziar di nuyu jeune amateur yépp daal yooyu les xibaar euh, journal suñu làmb ñoo ko fësaloon bu jógee ci suñu làmb mu mel ni am na xibaar boo xam ne nodd na Equivox mu mel ni euh, diggante rëg-rëg ak euh, waayam boobu mu doon bëreel ci MMA bi euh, mhm. defal def nañ ko démb mais malheureusement da cee mujjee amee défaite waaw waaw dafa mujjee ñàkk rëg-rëg waaw loolu mooy li am mais bon c'est la loi du sport sport moom tëdd mhm. noonu mhm. c'est que ñun liñ ci kii rek wala biñ bi yàlla defee loolu am ensemble bi nga xam ne moom mooy seen bi biñ ko wooyee moom dafa jàpp ne rëg-rëg ni ñu ko gañee du yoon parce que daa jàpp ne sifflet daa am ba pare ñu dóor ko dóor mu ñàkk combat moo tax tamit moom ne na day dugal recours mhm. ci yoon yi nga xam ne moom lañ leen yoon yi may pour ñu war fa dugal recours pour ndam loolu ñu mën ko annuler mhm. yaa ngi wala bokk su ba jox ko seen euh, athlète ñu jox ko parce que jàpp na ne loolu du yoon mhm. waaw parce que tamit soulevé ba pare ñu dóor la moom loolu dafa nekk loo xam ne ah mën nga ci sax yóbbu bakkan ah, doomu aadama parce que boroom défendretul boppam surtout ci baat nga ko dóor kon kooku defe naa ne loolu defe na loo xam ne bu fekkente ne daal noonu lay demee moom dafa nekk lu ñaawa ñaawa ñaaw rëg-rëg nag encore une fois ñun na xam mhm. mhm. fa dal ci bànneex ci naqar ñun ak ñun mhm. ñoo koy bokk rek parce que jeune la boo xam ne am ambition ak bëgg yóbbu réewam fu moo ko tax di def lii mais bu ko neexoon mën na yem ci làmb ji ak lit simple bi parce que mu ngi ci doon gagné vie mu ngi ciy gagné vie bu baax a baax te itam yaakaar naa ne du ne manes na ko ci de waaye bokk na ci ñi fi man bokk ci làmb ji loolu la yàlla dogal dëgg la waaw àddunaa ni mel mm-hmm. ndam mënul di dëkk chaque jour mënta ñàkk mm-hmm. waaye di ko ñaanal rek mu bu delsee gën a ñëw ak mm-hmm. noonu la looy tàggatoo tey waaw di sant yàlla mm. di julliwaat ci gën ci nit ñi di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jàmm Sénégal yal na ko fi yàlla def. Mhm. di nuyu Gomis mi ne woon si film bi ak Habib. Mhm. waaw Gomis ah. moom maam Gomis taalibi eh, Bamba la nag nekk taalibi Serigne Touba la. <laughs> di seen normal Habib teelu ko dama fàttoon Habib. tey balaa lay wootee Habib balaa waaw ba waa weex day woote jàmm rek. loolu la looloo baax. <laughs> di nuyu képp ku ñu TV. Mhm. rawatina suñu xarit ba Cheikh Bass maa ngi koy nuyu. di nuyu ñoom tuuti Yaay Sarr. ñoom Khadiroos Ndiaye Allemagne sama jigéen boobu maa ngi koy bëggee di ko ñaanal jàmm taalibi cheikh bu mag bi maa ngi koy bu baax a baax Xadi Roos Njaay doomu séeréer boobu mm-hmm. yàlla na sa jaamu yàgg kooku suma xarit la mm-hmm. yow mii mm-hmm. mais tamit Omar Tawa borom Marsa Salem du ma ko mas a fàtte kenn du moom ah, dinaa la ca yóbbu ah, <laughs> ah Omar Tawa day loolu la waaye mën a wax nit ku baax la mm. maa ngi bëggee di nuyu doomu ndeyam Saaliwu Xulle borom si mm. FM sama xarit boobu mm. Saaliwu Xulle borom 14 heures 17 heures danaa ko loo ci mën a dégg day animation moom yokk nga xar mi karaw eh. yàlla na jàmmam yàgg am di ko nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu uh-huh. waa eh, groupe des médias parce que li tax mooy dama fa am ay xarit uh-huh. dama am ay soppe boobu uh-huh. muy Pape Moussa bi nekk la tribune maa ngi koy nuyu sama sama ma doon jàngal Isaac Isaac mhm. ah kon war nga respecté Pape Moussa nit ku baax la ku neex deret mais di nuyu tamit la grand caméraman Baba Diaw nekk foofu ci Sen TV mhm. kon groupe boobu yëpp maa ngi di nuyu mhm. mais tamit di dem ba groupe Futurs Médias di fa nuyu sama ay soppe ndax Modou Diouf nga fa sama xarit sama waay la maa aussi sa kazalika waxi noonu suma grand Lamine Samba Malal Signor Diagne di nuyu groupe de presse yi nekk Sénégal yëpp yëpp di ñaan yàlla daal yàlla na yàlla di sonn rek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 Vox Arena, la voix de la l'arène, le G5. Un gala, cinq drapeaux, cinq grands combats ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena